salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum gars yi même commentaire bi lay gis Adamo waxal ci fecckatu Sidi Diop bi waxal ci guitariste Sidi Diop bi waxal ci nangamu Sidi Diop bi xam nga lan la bu leen ñu yeb bu leen ñu fontoo mun leen a topp di wax loo xamante ni maîtriser wu leen ko topp internet bi di yuuxu te li ngeen di wax maîtriser wu leen ko Sidi Diop la mu waroon a def lépp def na ko muy ay fecc katam ay tëgg katam ay musicien ay ay guitaristam sinapeur yi ba ñi nga xam ne wax rek mooy seen liggéey dajale na ñëpp fexe ba nu ñëw Europe ñaata fecckat ñoo ne Sénégal di souffrir ñaata tëggkat ñaata guitariste ñaata pianiste ñaata sinapeur mënuñoo teg seen tànk fii du jeex Sidi fexe na ba ñoom ñëpp ñëw xam nga ne gore mënut a weesu loolu Sidi nit ku gore la su ko neexoon indi mbokkam yaayam papam wala mami mii mu bokkal ndey baay wala ay mbokki yaayam ay nijaayam ay jarbaatam ne ay musicien lan même jéegi mi doon bind nit ñi su ko neexoon bind ay mbokkam famille bi yëpp ne ay musicien lan ñu ñëw defu ko defu ko ndax ngor gi mu doon ànd ak ñoom mu indi leen ñoom yëpp léegi nag ku ci goree loolu sa affaire la ku ci yàqaar ne boo demee Sidi Diop ngay yàqal mais mënoo yàqal Sidi barki Serigne baaba si ku nekk métier mi ngay def ci Sidi Sidi xam na xam na xam na ñoo xamante si nii waxuma la man mais man nan laa jàngal lu ëpp dix personnes taxaw di xaar Sidi rek la ñuy xaar balaa ngaa xam ne ñoom seen bopp la ñuy yàqal Sidi wàcc Sénégal bu wàccee Sénégal lay gën a mën a téye musique bi xam nga lu tax parce que di nga gisaat orchestre bu garaaw déggoo leen ma de da ngeen di wax lu ngeen maîtriser ku ne Sidi job da dul fay xaalis moo tax ñu daw wala waxuñu dëgg. man maa ànd ak Sidi Diop di liggéey ak moom man la ma liggéey ak Sidi rek parce que man maa ngi trois millions cinq cent trois millions cinq loo xam ne nii damay liggéey un mois doog koy am man ci ay deux jours laa koy am sa waay soirée bu bu jeexee bala moo tas gis naa enveloppe yi ni koy Sidi di joxe ku nekk dangay jot sa kase sa waay day leen di wax lu ngeen maîtriser ay sokook ay ñi ñëpp di duul di tararari aw ma man lu ma leen di wax man du ma nekk fii di wax ak ñoo xam ne tekkiwul dara ci Europe koo ci fëgg ne ko génneel ma 200 euro mënu ko génnee yoruñu seeni nelaw doyul wax rek mooy seen liggéey sa waay siidi di gor la barki Serigne Babacar si gor la nit ku baax la man nag faramaarin laa Wally Seck rek laa bëgg xam nga mën nga wax version ñu ne waaw léegi suba teel nangam nangam dëgg laay wax Sidi Diop gor piir la ku ci dem bul yaakaar ni Sidi ngay yàqal de sa bopp ngay yàqal ndax da nga gis Sidi tey la gën a mën a musique lu neex sax maay wax ak yéen en tout cas daal gor la la ko waroon wàccoon ak ñoom ñoom ñëpp wàccoon ak ñoom wasalaam bu ma kenn laajal leneen loo leen di wax di leen ko